Candidat. Mm-hmm. Et au finish, il a eu que cinq candidats. Mm -hmm. Donc, une, un candidat, bon, jusqu'à présent, je ne sais pas comment il a fait. Non, je peux me poser la question. Le femme Kedoko il était candidat, mais je ne sais pas par où il est passé. Quelle alchimie il a trouvé pour être candidat. Oui. Je parle de Madikenya. moi je ne sais pas comment il a bon bref je ne sais pas ah, ah, ah bon ah, je n'insinue rien mais j'ai le droit hmm. de me poser des questions c'est ce que je fais je n'accuse personne hmm. je n'indexe personne je ne minimise personne mais je me pose juste des questions là où un Bougane Gueye est recalé mm-hmm. Madické passe Mhm. en termes de de parrainage mhm. et puis aussi il faut savoir que am histoire mhm. c'est pour cela c'est important damaa soxla instant bi kenn rek une seule personne mm. se prononcer sur la question du parrainage du la laay xaar Mimi Touré ah, <laughs> non non elle n'est pas à fond. damaa bëgg non comme elle a non. non dama ko soxla j'ai besoin elle a théorisé et elle a même été euh, euh, euh actrice. Euh, actrice et directrice euh, de campagne de campagne du parrain de, de quelqu'un qui a remporté une élection mm. après le parrainage. justement am nga am nga invité toute bah, la vérité. voilà mais mais parce que là qu'est-ce qu'elle pense du parrainage aujourd'hui parce que dafa am solo. non non elle est elle est occupée à combattre une éventuelle troisième candidature de Macky Simon est-ce que du le fait que euh, ministère de l'intérieur. Hmm. moom mooy vérifier. signature yi au détriment de du conseil constitutionnel foofu la ñuy jaaree ndëgg sërëx il y la direction générale des des élections mhm. la direction générale des élections un mhm. démembrement du ministère de l'intérieur mhm. donc foofu la lépp nekk on a vu la dernière fois c'était quoi euh, des gens qui ont contesté mais après fan lay mujjee parce que boo yóbboo mbir mi conseil constitutionnel le conseil peut-être techniquement n'a pas les moyens de vérifier les parrains. les mhm. signatures en tout cas. Mhm. ak liñ ci laaj yëpp nom prénom date de naissance nangam nangam. Mhm. pour une conformité entre les informations et ce qui est contenu dans le fichier électoral. donc ça également c'est un problème. le le le véritable problème mooy ban fichier la ñuy utiliser. parce que des gens se posent des questions. ban fichier. il y énormément de rejets ya y énormément de doublons ya y énormément de euh, xaw ma lan y' a un motif euh, am na xeetu motif. Mhm. les gens ne comprennent pas. mais et puis pourtant si bon si bon entre mm. les sanctions destinées à ceux

avec mhm. des, des, des informaticiens chevronnés. Mhm. Oui. Mais malgré tout, mhm. il y a eu des gens qui ne sont pas passés. Tout à y eu des éliminations, des doublons, des je ne sais pas quoi, des rejets de liste. Oui. Donc là également, c'est un problème. Donc, man jàpp naa ne lii moom sotteegul. Mamadou Fofana peut-être nga sànni si quelque kàddu. oui euh, euh, wàllum parrainage bi xam nga. opposition bi ñoo joué wul le jeu. seen biir amul sincérité. moo tax parrainage bi di law ba léegi. mais ñoom rek bu ñu boole woon mun nañ régler problème parrainage. mu jeex tànn qu'est-ce qui se passe parce que am na ñoo xam ne jàpp nañ ne ñoom ala kulal dañuy jàll parrainage mais am ñoo xam ne mun ñu jàll. léegi nag ñu mënul jàll ça fait l'affaire des autres ñu mën a jàll. Mm-hmm. léegi nag c'est de bonne guerre ñii bu ñu jàllul ñeneen ñi mën a dem ça fait des candidats de moins et peut-être d'éventuels soutiens. Mm-hmm. mais affaire bu warul mën a nekk loolu. dañoo war a am sincérité mënuñu tout le temps ñu nekk débat autour du parrainage. Mm. lu koy régler ñoom ils la solution. buñ ko deful ñoom la rek après parrainage bi dafay tege Malick Gakou benn la ci ñoom ci cinq yu ñu énuméré mais 2019 Diallo dañ ko téye parrainage ak ci yeneen ak yeneen yoo xam ne téyewaat nañ ko encore. Mm-hmm. donc muy ñëpp ci ñoom ison ont intérêt ensemble ñu boole seen i doole. Mm-hmm. xeex parenage buñ ko mun lit ñu xam ne ne rek parrainage bi daf yi nekk et que demee ñu bañ a nekk fii tamit du ñu tànkal ak ay wax naa ñu wéy parrainage bi dafa war a dañ dafa war a dañ te ñoom ñu am solution. oui que ça soit clair. merci beaucoup au local dernière ñi nga xam ne ñoo doon yuuxu ñu bëri ci kaw naan parrainage bi dañ ko fa. jëli parrainage ñoo dem jëli fiche dem. ils ont eu leur délégué au ministère de l' intérieur pour retirer des fiches au moment où ils criaient ko tout le monde que affaire bi baaxul. mi ngoog <laughs> jeu de dupe Mame Mbaye Ndiaye namoon nañ la nag. est-ce que rawuma leen. ah. raw naa leen appel bi neex na waaye tax na duma la gis. ci fajar de non ma damaa weex. waaw ba tey maa ngi ci laay maxtaan. ñoo ngi si blanc bi ñoo ngi ci laay maxtaan. xam nga mantulaay war a gaaw ñëw nag. mantulaay <laughs> dafa war a gaaw ñëw jéego jëlaat sama place. <laughs> waaw non yow nel parce que mu ngi lay ñaanal fële. waaw non dafa bëgg lu yóbbu ñu koy parce que démb dafa ñoo dalal franchement parler. daf ñoo gàtte. ndeysaan macha allah mantu li ñuy wax faral di wax li wa li jaaykat bi di wax ñee ñoo appelul mais moom appel na. waaw hmm. na moom appel na. ñeneen ñi ñoo appelul ñeneen ñoo appelul mais moom appel na. donc démb ba daf ñoo gàttee. teral ñu ñu ñoo ngi foofu ñun ñëpp ñoom oustaz Mohamed Mbaye ak ay kilifa yi bari na fa la ñu nekkoon démb foofu nii sax ñoo fi nekkoon ndax yaa si et mu gàtte ñu yàq ñu fa laa jëre xaw a yokk sa biir gi xaw a yokk tuuti ak sama lex yi ndax lekk rek laa fi nekkoon yokk suukar si comme ni ko fii di waxee ñu koy remercier baax nag euh, di fa ñaan ma wàcc fii ci euh, Sénégal suñu bokk chrétien yi war a tàmbali euh, koor gi également mm-hmm. lépp lu nga xam ne jaamu yàlla la ñu ko daan def te ñu war ko gën a dëggal ci weeru koor gi it ñaan buñ si manta def rek yàlla na ko yàlla nangu en attendant ñun suñu fanweer wala su ñaar fukki fanaax juróom-ñeent nuyu nañu ñëpp nag jaajëfal leen bu euh, baax ndax waxtu yu jotee da ngay yéeg si kaw dañuy yéeg si kaw tribune bi rek ñu jox leen yéene kaay wax soxna jaar si abi ndooy démb dañu daj daje foofe sa yoof HLM Grand Yoff la ñu dëkk abi ndooy ja jaare defe naa noonu la tudd voilà nuyu nañu leen bu baax nag kon nag ñu yéeg ci kaw tribune bi yéen wax sànq ba léegi ay parrainage ak signature mm. amoon na logiciel bu nga xam ne defoon nañ ko fi pour vérifier affaire yi ba société civile bi ne woon gongo demaat ba ci biir ne nanu xoolaat tek que Sénégal loo teg ñoom mën nañ mën nañ wax ne lii baaxul mais du ñu teg mm. boo ne lii baaxul da nga fiy teg leneen boo ne lii nañ ko fi jëlee da ngay leneen dañ mm-hmm. waxante dëgg mm-hmm. parrainage bi nga xam ne ñoom ñu ngi naan parrainage parrainage parrainage opposition bi ñoom ñooy langaamu ci parrainage ñoom buñu nee baaxul kay bu ñu dem maam fii la leen waxoon bu leen dem ci élection yi ci nii condition yi mm. ku fi dem daanu ñu dem daanu mais chaise bi du mosul mosul pay waaw chaise du fay xam nga saisie du mu fay waaye parfois nag. di laaj lecture bu muy def. nekkal ci biir au niveau au niveau international. waaye naan sama yoon newu ci. góor man mais mais façon ba ngay xeexee. Mm-hmm. waaw façon ba ngay xeexee waa ji il a déjà gagné yàlla. mais malheureusement looloo fi am. Mm-hmm. non rek dañuy continuer de. par naa du baax du baax du baax baaxul baaxul baaxul ñu demee tiré seen fiche. élection sax parti au pouvoir kese mënul organiser élection. mënul ne mënul nekk mënul nekk. donc ñoom ñëpp bu ñu taxawoon. xeex ne du ñu bokk xanaa moom rek ñu dem def benn Euh, euh, euh, benn liste blanche bu mu teg nii comme ni xewoon Touba ci législative yi këyit bu weex bi fii ak moom këyitam xanaa loolu la ñu mel ni ku dem référendum hmm. waaw ba déet kër gi da ngay xeex baa nga bàyyi. mi ngi takk jëri baa set ci wecc. waaw ay compétition la nee na. tribune yéene kaay comme te tey tribune yéene kaay tableau bi da koy bañ. waaw si jox na la ko. yaa ma ko jox ah ba tey ma dem wala. ah da dugal foofu. waaw ah, ba tey baax na bu taax dewul lekk. yéene kaay groupe D Média. dafa ñëw ci am solo tey laay maxtaar la wuyoo. laay laay. téeméer ak ñeent fukk ak ñetteelu appel bi. Mhm. Seydina Limaamu Laay al Mahdi yéene kaay bi nag dikk na ci yoof kàddu yooyu mu fa yëkkati. surtout message bi nga xam ne jàll nañ ko fa. Mhm. mu di message bu am solo am tey sa <laughs> yaa ma ko joxoon am sa yëf. ni day gërëm ñamu am nga sama gërëm am sama ñaan. waaw kay. xibaar yéene kaay nee na 143e appel bu Seydina Limaamu Laay bi al Mahdi yoof fu mu nekk nii nee nañu. Mhm. am na murit Tiijaan mhm. Laayeen jàngu bi mhm. ba Njaasaan askan wi ñoo war a xam ne suñu kilifa diine yàgg nañu bay seen waa ci lu andi jàmm fii ci réew mi te muy dëgg bu réew mu amee jàmm c'est parce que ñoom ñoo ko ñage dëgg la dëgg la mhm. kilifa ñoo ñage réew mi nañ ci bàyyi xel mais Mame Mbaye dagguma la de ba ma waaw ay mais xoolal li Sëy Mountakha Bassir def cent millions ah, Turquie ndeysaan mais xool ma lii sëñ Mountakha yàgg na wane yoon bi. non sëñ Mountakha Bassir. non am ci réew mi enveloppe ba mooy njëkk dem. lii yëpp sëñ Touba rek. te muy dëgg. ni ñuy suqalee réew mu ne leen aajawul sax ñuy toog di xaar état. Mhm. mu woote Touba ca kanam. Mhm. dëgg la de. suñu kilifa diina yi ak ñoo xam ñuy doxalee. c'est des ambassadeurs de paix. maa la wax nii mais ñoom mhm. ñooy ñoom ñooy Sénégal. ñooy Sénégal. te coordinateur bi fàttali na ko démb. fàttali na ko démb nee nañ fii ci réew mi. kilifa diine la xam ñun. wekk dañu suñu kilifa diine yi respect bi nga xam ne dañ leen koy respecté diggante taalibe sëriñam looloo saxal jàmm fii ci réewum Sénégal. te loolu nag du ñu gis lu koy dindi. ñoom ñooy Sénégal. du ñu gis mukk lu nga xam ne nii dinañ nangu lu ko dindi. yéen kaay bi dikk na ci dikk na ci message mais également dikk na ci. beneen message bu nga xam ne joxe na ko jëm ci Cour des comptes dinaa si ñëwaat yéen a kaay groupe des médias dama siy teg sama baaraam rek. des ba tey ci li nga xam ne moom mooy appel bi ak nag euh, cérémonie d'ouverture 143e appel bi ak kàddu ya nga xam ne Seydina Issa Laye Thiaw daf koo yëkkati jagleel ko suñu politiciens yi. waaw jagleel ko askan wi. nee na xeex leen seen xeexu politique na yem ci politiciens yi waaye boo leen dugalee seen baaraam ci biir di ngeen xam ne laal ngeen laalaakee. waaw te loolu nag la ñu nemmee ku gis jamono jii nee nañu fii réew mi toll kenn sañatul wax. Hmm. ku wax ñu daal sa kaw. nee na jàmm ji nga xam ne moom la suñu kilifa diine liggéey ñu gis ay politiciens yu taxaw ne loolu dañ ko fi jëlee dañ fi jëlee wekk gi nga xam ne suñu kilifa diine moom moom lañu leen wekk. Mhm. mbirum tarixa ñu ne dañ ko fi jëlee. du samay kàddu de Seydina Issa Laye Thiaw mooy wax ba tey. du samay kàddu. mooy wax. nee nañ démocratie si réew dañu koy defar saa su ne. waaw te bi ñuy wax démocratie rek kilifa diine yi am nañ ci part wu rëy. Mhm. des combattants politiques en en plus fini xeexu euh, waay politiciens yi nga xam ne ñuy taxaw. te fan la ñu ko wéer puusal ma toog. teguñu ko fenn. kaay ñu xeex ngir ma toog. ki nekk li mu def baaxul xajal ma ma toog waaye noonu yéen yemale leen ko si arène politique bi. Mhm. bu leen dugal seen loxo si diina ji ni muy doxe naan lii baaxul ak lii baax na nee duñ ko nangu 143e appel bu Seydina Limamou Laye nee na fii ci réewum Sénégal. suñu kilifa diine liñ fi bay duñ ko dindi nañ jaaro ci max di bi ngir lu saxal jàmm fii ci réew mi mais également lu suqali suñu réew mi dinaa ñëwaat ci l'évidence ndax dafa wax lu am solo le peuple quotidien ba tey ñëw ci woote bi nee na yoof mer na de Seydina Issa Thiaw Laye coordonnateur général bu appel bi mooy yor seen kàddu te moo wax nee képp ku nga xam ne taxaw nga ngir jëlee fi suñu doxalin ngir maanaam diggante sëriñ ak taalibe hmm. ngir bëgg fee jëlee tarixa yi hmm. bee boo nga xam ne di nga jàkkaarloo taalibe yi nag te muy dëgg te nag taalibe du moroom militant hmm. ñëpp xam nañ ne diggante taalibe ak sëriñam digal jëfe te ba pare sax nañu fàttali ni taalibe yi ñoom ñooy nekk ay sympathisants yenn leaders yi kon seen sëriñ si bu leen oowee fàttaliwaat diine gi ñoom dinañ am problème bu ñu wallaahi Seydina Issa Thiaw Laye mooy wax ba tey nee na ay politiciens yi bëgg na kon ñoom ñooy diriger lu toll ci fukki million ak juróom-ñaar ci ay doomu aadama yu yeewoo fii ci réewum senegal ne kenn du wax na ñoom lu ñu wax moo baax lu ñu def moo baax xoolu ñu ne baax naam baaxul waaye lu ñu bëgg rek mooy am keneen ku ne déet ñu dal sa kaw bëgg réew mi réew moo xam ne réewum démocratie la pensée unique amu fi. billaay. am nga droit kay man dama lay nangul yow asma li nga bëgg dama lay nangul na ngay doxale waaye nag doo bañal man li ma bëgg. doo ma bañal ni may doxalee. ci kaw sax mun naa bañ a d'accord ak yow de waaye dama lay nangul sa tolluwaay. loolooy démocratie. Seydina Issa Thiawlaay nee na loolu ci boppam moo fi jeex. ah. fi jeex de. mais man. une dizaine de personnes ne peuvent pas dicter leur loi aux 17 millions de Sénégalais. te muy dëgg. mais xam nga lan la mun ma gëm benn affaire. Hmm. gis Sénégalais bon terme di attaquer. guide religieux. Hmm. man ke man je ne peux pas croire à ça. en tout cas. loolu daal vraiment je ne je n'ose pas croire. mooy wax. sénégalais bon teint. mooy wax si le soleil yéen a na réew mi ngir mu soqali ko faw jàmm sax fi te jàmm jooju nag jàppale ne kon suñu kilifa diine dañ koo ñàkk ba noppi. ndeysaan wër nañu ko ndomb. donc wër ndomb googu nag ñu ne dañuy dindi ñàkk moomu bee boo ñu xam ne ku ko dindi laal nga laalaake. yoof laa yéen sermon la classe politique Seydina Issa Thiaw Laye mu ngi fàttali sunu euh, politiciens yi ne faw ngeen dox ci lu andi jàmm ci réew mi ndax loolu moom mooy seen jàmm ñoom mooy wax ba tey de tey yoo yoof lañu xëyee yéen kaay yu sa bari tey yoof la ñu xëyee waaw yoof waaw affaire bi suuf su aana yoof dafa énervé waaw mer na yoof mer na yoof jéppi na ñenn ñi ndax nañuy doxale géej gi refoulé na la refoulé na leen géej gi de refoulé na leen <laughs> du samay kàddu <laughs> nee na une dizaine de personnes ne peuvent pas dicter leur loi aux 17 million de sénégalais fu fas dul dem na xel fay doxantu man waxuma ba tey. Mm. waxuma ba tey de Seydina Issa Thiaw Laye mooy wax ba tey il ne sert rien de signer un pacte de paix la veille des élections et le rompre aussitôt après. Mm-hmm. te muy dëgg. dañuy dem rek toog naan na ñu dox si jàmm jàmm si la lépp xaj. da buñ tere ñu wàcc si terrain bi defante. fanta siro fanta teg sikkim yéen kaay groupe des médias maa leen koy wax sànq de buñ ci ñëwaatee moom nee na message bi yemul si ñoom de message bi également jox na ko ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk gaf ak réew mi parfois ñuy joxaat la seen poos ak poos askan wi di gundaandaas yor seen carte gàpp jox leen xaalisu mbas mi heure bu leen neex ñu dem rëdd retiré def seen poos dem weekend Dubaay hmm, gundaandaat gundaandaat ndaataatalax ndaataatalax wax na ko wala ah, bu xamoo xamoo tam ndaataatalax xamoo tam gundaandaat si ma wax ñoo la beneen tamit. Ah. Mumbai Mumbai Mumbai mooy. <laughs> Mberaay tam bu la neex. Mberaay waaw xam nga Mberaay. ah tamit seen amoon na émission bu. très bien. non foofu c'était ah, na ñooñu ñu xam ne. tribunal bu mag bi dina ñëw de ba supp penc. billaay wallaay Cour des bu mag bi de dina ñëw ba su penc kon na rafet rek si kaw suuf. transparence yeneen lekk lu lew tey ndax lu ñu fi def tey jii rek biyee ñu xam ne ëllëg dinañ ko dañu ci toog waxtaane ko waat mambay hmm? actualité yox bi xam nga euh, lan la ma inspiré hmm? ñu bëri dañuy ne suñu kilifa diine yi xamuñu lu xew ci réew mi eh, maanaam dañuy tàkk ñoo informé wala taalibe yi leen di wax te li neex taalibe rek la ñuy wax sëriñ si li leen arrangé mais loolu amul gis nga sunu sëriñ sii ñoo gën a xam li nekk ci biir réew mi lu bëri ñu ngi koy lijjanti te waxuñu ko ci pénc mi ñu ngi koy dox ci suuf ñu ngi koy wax ci suuf. bu hmm. bésu penc jotee nag comme nii laa laay yi def ñu wax ak askan bi yëpp. maa la wax nii mais ñi jàpp ne sëriñ xamuñu li xew ci dëkk bi ñu ngi nax seen bopp. ñoom nañ seen bopp ak ngëmam ak yàqinam kenn waru ko laal. man lenn rek laa bëgg que chaque leader politique. Mm-hmm. que chaque leader politique se démarque des instructeurs des guides religieux. te muy mm-hmm. waaw yaa wax ku nekk. Mm-hmm. que man lii daal du man. man loolu laa soxla exemple. jeex na lii daal du man. wala lii daal. te mu sincère parce que mën nga. te mu suuf. non mais au moins loolu ne bi loolu jot na l'observateur nee na. Ah. di wax ci kaw affiché kabooy. Hmm. affiché indo ci kaw. dawal kabooy ci suuf waaye yeewee askan wi fu nekk noonu la ñuy doxalee. ay présidentielle yeewee askan wi ko président Macky yaa ngi xool prox ndoll boo jaar ndax nag nee nañu yoon yëpp baax na l'essentiel na yegg rek présidentielle hmm. te ñoom ñëpp li mbëtt bi bëgg moom la bari bi bëgg ku si nekk yaa ngi doxal sa bopp l'opposition est le piège de la dispersion ku si nekk yaa ngi samp sa ndënd si suuf te sax defatuñ ko si suuf ku si nekk nee na candidat la ñu si bëri c'était xam ne ne meeku nañ mën na leen porter préjudice ndax bu ñëpp tasee ku nekk dem sa nënd man boo nekkee candidat ma nekk te ñu bien boo ñu bokkoon yeewi waaye bu ñu dajee si bi dama lay defal bagage waaw loolu ay dëgg. dafa leer parce que 2024 la ñu jëm bu ñu yeggee 2024 après nag bu fekkee yaa jiitu am problème nga ñu daje rek boo mënee jàppale nga jàppale ma Sonko joue la montre yéen kaay bi moom moo ko wax nee na dugal këyit ga nga ay avocat am dugaloon nañ ko ko dañ ko ko delloo nee nañ ko demal nga toog. Hmm. fu mu nekk nii procès rek. chambre de criminalité waaye nag ay avocat am déedéet cassation. tàcc sànni tàcc bi. Hmm. faw ñu kase décision boobu ndax jàkkaarloo bi la ñuy bañ. procès bi la ñuy bañ donc rek am nañu lu leen dese ba léegi. moom tuddul procès pros lañ waaw ñoom pros mooy président Ousmane. ko ñoom noonu lañ ko. pros sonne avec procès. non non ñoom baatu la ñuy bañ. pros sonne avec procès permettez le mot. oui ba ba ba bàyyi kan mandat dañuy bañ ko le mandat dañuy bañ ko tudd ci mbedd bi dugal ci biir. <laughs> waaw yéen a kaay daal na ci daal na ciy dikk ak biir yow euh, euh, euh, l'évidence sànq maa ngi lay wax dañ ci tegoon sunu sunu baaraam mm-hmm. ndax da waa ji dafa am dafa wax lu am solo. waa ji di euh, El Hadji Bokar li ingénieur informaticien la situation euh, euh, nationale ci wàllu politique nee na kan moo mën a sauver Sénégal 2024 loolooy laaj bi kan moo mën a sauver ndax suñu politiciens yi xàmmeetu ñu leen waaw ñoom ñooy politique 24 ah, ah, ah, heures sur 24 365 jours ñenn ñi ñenn koo xamante ni sëñ Mountakha mu ne yow daal nga sama xel <laughs> mante loolu daal man ma tout le monde l'a entendu tout le monde l'a vu mm. sëñ Mountakha mu ne yow kay sama xel dal na si yow sama xel dal na si yow nee na am na ay politiciens yu nga xam ne nii wax dëgg kenn xamatul leen waaw dañuy dañuy jéem a góorgóorlu ci il faut am benn outsider koo xam ne ni dafay fële fenn ah, koo xam ne kenn xamu ko ni traîné wul benn casserole loxoy set mais quand même Bougane a la posture que le président Macky avait eu en 2011 2012 doxal yoonam noppi ne tekk di doxal yoonam mais dama ne Sey Mountakha bi nit ñi di xeex fii Sey Mountakha Bassir Sey Touba parce que moom Sey Touba mm-hmm. sama xel dal na ci yow. te muy dëgg merci